mariage mama Vulgaire ñu bëri ñu ngi ci àddu naan lan moo waral ab sansu kii di Mame Ndiaye Savon topp naa kaa bi dinaa ko leeral waaye avant may àddu ci mbir mi damay féliciter aka wax heureuse ménage ki nga xamante ni moo di mama Vulgaire di ko ñaanal sëy bu barkeel njaboot gu saawaan baawaan di ko ñaanal bépp jigéen bi nga xam ne amagul boroom kër yal na leen sunu borom boole ak ki gën ci yéen ñi nga xam ne ñu ngi ci néegu sëy te amaguñ doom yal na leen sunu borom may doom bi nga xamante ne mooy ki gën ci ñoom ku ne amin ñaan bi yàlla nangu bu leen fàtte di abonné fi nga xam ne moo di Timtop Cas 221 nee naa leen lépp luy cas actualité xew ci réew mi fii lañ koy daal di traité ba mat sëkk coow li nag lenn kase la moom moo di absence maam Ndiaye Savon ci xewu moment vulgaire mbokk yi fi ñuy njëkkee dañuy analyser côté positif ndax nit ki lépp lu am rek jëlee ko ci rafet njot ndax nit ki rafet njot ngay njëkk xalaat ba pare parce que digganteeg maman Vulgaire ak ki nga xamante ne moom moo di Mame Ndiaye Savon démb la tey door a ñëw sa doomu ndey am na xew moom ñëwut wala keneen absenté yàgg naa dal ay nit tey am na nit ñoo xamante am ànd nañ ni ñu nekkee xale ba ni ñu nekkee mag kenn ki absence ci xew moroomam loolu mën na arrivé ci lii nii tey ji kan moo wax ni maam Ndiaye Savon amul benn empêchement boo xamante ni téewu ko téew boo xamante ni mënul déplacé wu dem ca boobee xew nañu xalaat lu rafet avant tout que ñuy yëkkati ay kàddu yu ñaaw naan maam Ndiaye Savon dafa soxor patati patata mais tamit li lu waral ñuy wax loolu mooy dafa am benn bis mooy concours togg bi donte ko digganteeg Mame Ndiaye Savon ak employé bii di wuyoo ci turu moment Virgère jamono bi nag mu daal di beroon place am nekk fa di jaay ay li nga xamante ne moo di mbirum togg ay géej ak ñoom ñooñ mu nekk jigéen bu jàmbaar di ko gën a encouragé mu gën koo téye ndaxte nit ku nekk li nga yëngu ci nga mën a tiitaroo ci nga mën a sagoo kenn du la ci fekk di la ci yëpp maman Virgile concours togg boobu mu bay déplace mu bay lépp def déplacement am ñëw ànd ak Mame Ndiaye Savon wax kàddu gu am solo ni Mame Ndiaye Mame Ndiaye tey la Mame Ndiaye Mame Ndiaye suba la ñoom ñaar démb la tey door a ñëw loolu mën na di continuer ba tey ñoom ñaar problème bu xew ci diggante nit ki ak nit ki liggéey boole na leen bokkatoo foo leen liggéey mais teewut ba tey jàmm ji mën na di continuer tey ji kan moo ne Mame Ndiaye ak ki nga xamante ne moo ni Mame Boye Guèye jàmm ji nekkul di continuer mais tey xam nañ am na ñenn ci sénégalais yi ñoom lu rafet njort duñ ko xalaat lu ñaaw rek la ñuy xalaat ñu bàyyi gaay ci loolu bu dee it Mame Ndiaye moo jël initiative ne du ñëw ci boobay xew laa xamatuma ci dara ndax bu dee benn bis maman Virgile taxaw taxaw na ko tey jii maman Virgile dégg na kàddu gu nekk butiku Mame Ndiaye teewut mu jugee fa. nee nañu coowal Mame Ndiaye ak maman Virgile benn copain maman Virgile moo ko fa jël si neexul Mame Ndiaye moo waral mu jugee fa mais bu fekkoon lool le passé c'est le passé tey bu ñu fa demee ba gis ay bu buté gis fa ñeneen ak ñeneen war nañ faa gis. ki nga xamante ni moo di maam Ndiaye parce que bu dee benn fan sax ñoom ñaar jëflante nañ ko ci lu rafet bu dee kàddu yi ma yëkkati lenn def see dëng maa ngi leen di jéggalu bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen yoon.